solution bu gaaw sinon euh, fi mu mujjee du neex te ñaanuñu ko. Eh aywa Siré xam naa ni di nga ñëw ci euh, économie bi baal ma rek Mamadou temps bi daf ñoo xoj parce qu'il est 7h50 euh, minutes faaw ñu jàll ci ci revue des titres yi ah si vous voulez après ngeen toog ci commentaire journal bi si vous voulez. n'est-ce pas Mohamed. incha allah ñu ngi nuyu Hadj Mansour mi ñu fekk si léegi. ci plateau bi jërëjëf Hadj. jaajëfal la kon Yacine ñu xëyee kon li fi yéen kaay xëyee tàmbale koog tribune xëtam bu njëkk dikk na ci budget deux mille vingt et un ñu ngi ciy wax ah. lu toll ci juróomi junni taftal téeméer ak juróom fukk ci ay milliards sunu koppar la nu bëgg a doxalee. atum 2022 Siré ak itam euh, li nga xamante ni euh, moo di rek euh, budget de fonctionnement am waaye nag tribune dafa dikkaat ci bu ñu nee 5150 milliards mën nañu wax itam ci wet gi 5150 problème yi nga xam ne war nañu ko lijjante bu baax a baax ci budget Sénégal boobe ñu voté dañuy ñëw ci yéenekaay bi Euh, di Vox Populi euh, dikkaat ci euh, impact bi nga xamante ne ni revenu exploitation hydrocarbures yi mi ngi koy am en tout cas Sénégal mi ngi projeté wu ci l'âge d'or du pétrole JETA ak SNE daañu assuré pour état bu Sénégal lu toll ci cinq cent milliards ci sunu koppar par an sur trente ans kon mel na ni Mamadou Fofana pétrole bi c'est c'est c'est croustillant donc mi ngi xaalis koppar gi bëri na ci lool euh, mu doon li nga xam ni également lu am am solo la muy euh, ressource yooyu euh, ne ci mim réew di Sénégal ñu des ak Vox Populi Yacine dikkaat ci violence ñu nemmeeku ci université yi Sonko moom. Euh, daan na ci dut baaram suma Macky Sall président Macky wax ne na xool yoon mu mën a jaar ngir gën koy gaaw saafara ndax euh, université bu Bambey ak euh, bu dakaar bii li nu nu jógtee fan yi doy na waat buñ ci taxawul dina rek miti lool ci nguur gi ñoom seen bopp nañ leen gaaw saafaraal seen i jafe-jafe en tout cas démb violence bi taroon na lool foofe ca fi nga xam ne moo di rek ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar doon jàppale seen i nawle wala mbokk ya Fatick euh, palais le palais des jours un vaste trafic donc mbirum passeport diplomatique yi moom euh, tey yéen kaay ci bëri bëri xëyaat nañu ci moo taxit libération itam euh, dikkaat na ci bu euh, baax a baax moom libé dikkaat ci jafe-jafe bi nga xamante ni également war nañ koo gaaw gindi jëmale ko ci passeport diplomatique yi lee libération dafa ñëw ci xëtam bu njëkk ci trafic passeport diplomatique yooyee ak découverte yu yees yi nga xam ne division des investigations criminelles daal na koy rek daal di gis mel ni ñoom en exclusi exclusivité sax lañ ko daal di lañ ci daal di dikkee mafia bi nga xam ne neutral neutralisé nañu ko euh, diggante affaires étrangères ak présidence euh, ginnaaw euh, ba ñu signalé kon ba mu ko ginnaaw ba mu ko signalé moom général Meïssa Sélé Ndiaye ak ñaar ci ay yi nga xam ne ni Yacine ñu ne bokk nañ ci affaires étrangères waaye itam ay homme d'affaires lañu ñu jënd boole ak passeport diplomatique bëri na ci ay tur yi nga xam te ni usurpé nañu ko ay turu kilifa aada ak kilifa diine jël seen i tur euh, usurpé ko ah maanaam euh, ngir rek passeport euh, diplomatique yooyu en tout cas xët bu njëkk bu libération moom boo leen ko jëndee lii ko ci biir daangeen xam li nga xam ne moo di jafe-jafe nemmeeku ci mbirum passeport diplomatique yooyu ndax mbir mi daanaka jeexagul bay waaj wala waajagul bay jeex ñu ñëw ci maillage sécuritaire li ngeen ko doon wax fii ci plateau bi bëri na ñàkkum kaaraange gu ñu nemmeeku si ci Dakar ak tund yu ko wër donte sax ñu ngi gis ne ay inauguration yu bari bari soxal Euh, wàllug euh, nu mu tuddati euh, commissariat yeeg yi ni mel ñu ngi bari ah waaye violence wala si insécurité bi mi ngi gën di yokk loolu nag moo ñu jaaxal Antoine Diome mi ngi def lu mu mën mu ne jëm ci wàllu inauguration commissariat ci gox goxaat yi alors budget 2022 les cinq gros axes ah bokk na ci la barre des cinq mille milliards yi nga xam ne moom la ñu bëgg a doxalee atum 2022 soxal budget de fonctionnement bu Sénégal Euh, démb Thierno Alassane Sall mi ngi koy wax ci plateau Sen Show que ne budget bi lu mu rëy rëy na ko sénégalais yi sentir te li ñu projeté muy taux de croissance bi il faut que également euh, war nañu mën a dépasser sax cinq virgule cinq yooyu euh, ñu daal di pour cent yi ñu daal di projeté déficit bi ñu projeté également ñu ngi ko yóbbu ci téeméer boo jël ñeent yi ak programme yi nga xam te ni ñu ngi ko tënk ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci atum deux mille vingt deux bi soxal budget boobee siré mm. di cinq milliards ak lu topp cinq mille at kese xanaa war nañ cee mën a liggéey nag moom foofu na lu bari. bari na de benn milliard dañuy séntu mm-hmm. ci taxes yooyu la recouvrer mm-hmm. ci loolu la ñuy financé xam nga boo ñëwee ay chiffres tout le temps mm-hmm. te reflété par rapport ak réalité bi nga xam ne moom la askan bi du dund amul sens et puis ay milliards doublé nañ ko loolu ça n'a pas de sens Ablaye Wade daa ñëw fekk Abdou Diouf ma nga ca euh, milliards mu yóbbu ko ay milliards Abdou Macky Sall du loo xam ne lu ñu war a la am solo mooy mu impacté wu ci dundunu askan bi mhm. na impacté wu ci dundunu askan bi mu doon lu am solo Dakar à tout prix président li koy teree nelaw Birame Touré jamono ji mooy mu gagné Dakar xam nga nag un président de la République ñëw euh, ba euh, dem te gañewul mairie bu Dakar Birame <laughs> loolu day na waar moo tax njiitu réew mi bëgg bëgg mbokk na ci Dakar gi nga xamante ni nii moom mooy ultime défem jamono ji maanaam euh, foofooy combat am ndax fépp mokk nañu ne waaye Dakar gi njiitu réew moom président de la République bëgg na ko gagné lool tension dans les universités sénégalaises temps yi université yi yëngu na loolu ginnaaw bu ñu xamee ne am na période bu nga xam ne véritablement amoon na accalmie bu baax a baax alors yéenekaay bi euh, di rek euh, euh, le quotidien di moom itam ci violence université yi ana yan yoon lañu mën a jaar vraiment Euh, ba jafe-jafe yi mën a dakk ci euh, étudiants yi euh, li jafe-jafe nag bokk na ci suspension amicale yeeg ah dissolution coordination étudiants yi loolu lépp bokk na ci xëy na li tax étudiants yi ñoom tam compte tenu seen jàppale ci beneen université muy Bambey li tax seenuk mer daal di gën a yëngu alors grande chancellerie lu toll ci téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar ci ay dignitaires élevé nañu leen dans les ordres Euh, mérité yéen tamit mérité ngeen ko est-ce que duñ leen élever chancellerie tamit aw oui élévation yi biraam nu muy demee da ngay def jaloore wala da ngay dañuy dafa am euh, bu ci nekk ak li ñuy wax nombre d'années de service hmm. euh, boo xoolee bu 4 avril jotee wala président comme moom mooy Euh, grand chancelier am ñu mu dénk wàll woowu dafa am nombre d'années de service yoo xamee ne boo ko defee mhm. wala euh, ci ay euh, wàllu jaloore loo xam ne def nga ko ci secteur bi ngay nekk muy ci mhm. santé muy ci wàllu armée muy su mu mën a doon mhm. ci loolu lañ lay yéegee ci grade yu bëri am na nag ki ñuy woowee chancelier bi nga xam ne moom mooy denc loolu yëpp moom mooy proposer tamit ñu tabal la benn raaye proposer ko président kooku def lu ni mel mu doon am solo vingt 24 heures dikkaat na ci euh, kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadri yi ginnaaw euh, waxtaan wu am solo bu mu seq ak ak murit yi jëm ci euh, baaxel xel ñu war a bàyyi xel ñi nga xam ne yoon moo di yoon bi ah te ba xel également politique yi ak seen i ay bëgg-bëgg ne souvent seen ay intérêt la ñuy jiital même bu dee dañuy tudd Serigne Bissiré kon mu doon déclaration bi nga xam te ne également Serigne Bassirou Abdoul Khadri dafa mel ni kuy àttu en tout cas murit yi ci ñu bàyyi xel wala ñu def. Euh, en tout cas la part des choses entre yoon wi di mouridisme ak politique bi nga xam ne euh, jàpp na ne euh, ak façonum politique bi mën na yàq li nga xam te ni moo di lu jëm ci nekkin wala li yoonu murid di laaj. waaw xam nga mën nga ko analyser sax ci grilles yu bari selon les grilles de de Birahim mais mais man grille bi ma ciy retenir mooy xam nga soo nekkee kilifa diine. Mhm. je pense. que sa cër lu ma war a gën a nekk mooy boole au lieu que de diviser di féewaloo parce que jàpp naa ni soo tegee position bi comme si il y a les mourides ici les dafa mel ni eh, que ñii maytu leen ñii te ñun ñëpp ñuy ay sénégalais te politiciens yi mu am mouride comme mouride mu am politicien finalement après yow léegi fan ngay tax waaw day xaw a day xaw a jaxasoo pour de man de namm naa ci kilifa diine Euh, toujours muy discours am muy boolele su que bañ a opposé cest muy opposé muy bañ a euh, opposé je pense que Euh, parce que euh, bi muy waxee euh, porte-parole euh, de toute une communauté. Mm je pense que. wax murit yi mu mel ni comme si daf dañuy dañuy dañuy simpi murit yi ci démarche Sénégal politique moom Sénégal diine nañu toggee politique loolu depuis tubaab yi la ça veut dire politique mënoo cee génne diine fii Sénégal mënul nekk parce que Sénégal ci boppam euh, politique am diine nañ ko tabaxaale. Mhm. loolu moo tax. même même ñoom bu ñu leen euh, bu ñu leen bu ñu leen joxul pouvoir constitutionnel ou constitutionnalisé. Mhm. mais dans la réalité des choses ñoom ñooy téye fii Sénégal te crise bi amoon 8 mars. Mhm. war na la quoi c' est pas l' état ou l' institutionnel qui a réglé les crises majeures. mais c' est toujours le religieux qui règle. loolu xalaatu euh, Siré la alors Hadj Mansour Jamra moom mi ngi woon ñu sanctionné député yi nga xamante ni dañoo bañ lànk ndaare ne duñu woote. loi bi nga xam ne day jëmmal ci <laughs> luy tere jëfu borom ñaari tur yi loolu nag xaw na noo jaaxal lool ah <laughs> ndax coor yu bari na ci loolu ñoom ñoom luñ ciy ragal ñoom bi euh, sa xalaat xaaj ah day na waar de ah day sax ci la ñëw ah am nañu am nañu liberté des actes contre bi LGBT ah ñoom député